assalamu alaykum ñongi nuyu kenn ku nekk ci turum ak santam di len remercier vraiment ci sen présence di len remercier ci ni ngeen associé wu ak ñun tay ñu ñew téru suñu candidat président Aliou Mamadou Ndia di len ñaan ngeen tatchul mako bu baax baax président ñong lay dalal sa bir kër euh, di la wax ne ne fi yaangi Castor commune de Djepel Derklé di la wax itamit ne ñii fi teew ñëpp tey yow yaa tax ñu teew fi am na ñoo xamante ne fii si koñ bi la ñu dëkk euh, ki nga xamante ne peut-être moo ko jiite tey muy soxna Khady Ngom dina jël kàddu ñu am fi benn association bu mag association La Case émergente def liggéey bu am solo ñu mobiliser ñi nga xamante ne ñoom lañu am si koñ bi yëpp ñu teew ñëw tey pour teeru la yow doomu Castors am ay représentant sax ay conseillers municipal ñëw nañ tey teewee fii pour dalal la am ñi nga xamante ne ñuy liggéeyee ci maire bi ay agent ay soppe lañ am ñi nga xamante ne tamit ci koñ bi lañu lañu la ñu dëkk ñëw tey pour dalal la fii nga xamante ne moom mooy sa kër di la wax ne am nañ mbégte am nañ mbégte tey ñun dalal ki nga xamante ne moom mooy nekk le futur président de la république cinquième président incha allah ñi nga xamante ne tamit ñoom lañ am ci parti bi yëpp waa fédération bi yëpp ñu ngi fii toog ak suñu honorable député yii yëpp ñëw toog pour accueillir la fii parce que sa ñëw bi dafa nek ñëw boo xamanteni ne ñëw bu am solo la ñu kontaan ci trop ñun wa Castor ñu am ci fierté. motax def lu bax dafa am solo surtout nga def ko de manière désintéressée nga def ko naturellement bu ñuy wax def ta yalla rek tax je pense que ça c'est une parfaite illustration parce que ki bàyyee bàyyeekoo ko ñëw ñew nara tumu ranké waye yaakar suñu borom rek parce que xam yalla il est au début et à la fin de tout processus mu yaakaar yàlla jaayanteeg suñu borom mom famu mu yeksi dal ci ay loxo muy suñu papa Adama Ndaw loxo yoy tatagal ko ba mom mu don limu don mu bok ci ñiko tatagal loolu yalla rek ko man mais aussi jëf ju bax rek am solo. bon sama teewaay fi tay c'est juste pour wax leen ni c'est pas fortuite lan motax euh, le président Aliou Dia ci kër yi nekk ci ndakaaru bari mu jóge caajaay ne leen tey damay dem seeti sama benn papa je pense que du papa moom kase alaaji Adama Ndaw li may wax ni mi ngi may dégg je parle au de la famille bàyyoo nañu bari boo gisee je pense que am na loo xam ne góor góorgóorlu nañ ko ci kër gi ba ji ko ba war a tax tey mu ne day ñëw fii nemmeeku waa kër gi safok ñom ba paré di len dello ñukël c'est juste dafa am lu ñu war a ci geste bi moy nit du fàtte demb man dama nekkoon di voyager ñu woo ma ne ma Aliou Dia candidat parti PUR automatiquement coalition bi ma nekkoon ndombal tank yi ma fa jëloon ak responsabilité dama ko tek ci souf parce que la famille elle est sacrée

yàlla mun na ko jomm na ko yàlla la ko yàlla may ci barke yonent bi ci turu famille bi yëpp ñu ngi lay remercier di la jaajëfal. président ñun de kër gi lañu am man nag maay présidente association bi ñu composé 36 maisons gox bi la case njol bu ñu waxee xam nañ ne sa kër nga ñëw ndax kër gi mooy kër wàccuwaay. ni ko Mohamed Ndaw waxee léegi doo doxandéem bu ne du Sénégal rek mën nañu wax Afrique yëpp dañ leen ubbil seen bunt fii ci kër gi ñu am fi wàll bu rëy El Hadj Arba na suñu pàppala la ku mu woo nga wuyu ko ku ma yónnee nga dem ndax moo ko fi liggéey Babacar ngam sama mag lépp fii la koy defee ci kër gi mu yor ñu yar ñu nekk nag ci social boo xamante ne que dafa jéggi dayoo. ku feebar mu faj ku xiif mu jox nga lekk ku bëgg seetaan télé mu tegal la télévision ak télécommande fii la jëkke ci kër gi mu yaatal ñëpp nag dafay yaatal nit ñi ba nit ñi di ko buux du ñu xam ne sax moom mooy boroom kër gi foofu la mbaax yem bi Papa Ndaw ñëw Papa Ndaw ñëwee nag mu ne pré président euh, candidat pur Mamadou Aliou jar dama gëmm njalu ñëw ñun ñëpp ñu naa di parrainé dañoo gëm mu def ko ndax xam nañu kër gi lu fi lu ñu fi yëkkati lu ñu fi yëkkati rek amuñu sikki sàkk dañuy xam ne rek borom kër gi jaan jaan la doomu jaan jaan la te yow doomu aadama naw nga kon boo ñëwee fii dañuy kontaan ci tertu la association bi nag ñu ngi nii ñoom Taawa Ndiaye ñu ngi fi Bamba Fall mi ngi fi euh, Mouhamed Ndo bi dañu wax léegi vice président la si ndaxte y a trois vice présidents ñëpp ñu ngi fi ñun nag dañu ne dañu apolitique mais xam ngeen ne ab politique amul ab politique amul donc bu ñu ñëwee caam bu nga ñëwee kër ga wax nañ la ko mais yow lañu ñu pare ne loolu nag li tax ñu def ko jikko bi yëpp dañu copier rek ne papa Adama Ndao képp ko takk ci moom papa Adama Ndao la donc ñu ngi lay ñaanal euh, lii ngay ut nii yal la ko yàlla may. fii bu fekkee ne am na benn kër ci ndakaaru boo xam ni mën naa ne sama kër la kër gi ci la bokk. wala mooy première kër parce que papa Adama Ndao dañu nekk étudiant am bac ñëw Dakar jóge ci àll bi ñoo xamuñu kenn Dakar ñu xamante ak ndaw Ndao bi université lañ mës a jóge daal di ñëw ci kër booy nañ dem suñu kër ñu topp ñun ñëpp ñu ñëw bañ fi duggee ba tey 92 xaw ma 93 ba tey génnuñu fi. li bu ma amee benn koñ ndakaaru mais vraiment Castor la. li bu ma amee benn koñ ndakaaru mais vraiment Castor la donc donc moo tax moo tax moo tax challenge bi am solo moo tax challenge bi am solo donc euh, Castor obligatoirement dañ fi war gagner donc xam ngeen ko voilà donc di wax ni di wax ni aussi moy la même chose rek limay wax wa aussi parce que Wakaam it dafa bok ci man bama ma xalé la fa dara dara dem ba légui am fa ay mbok bu baax a baax it ah mënuma len fay wa Wakaam yi su ngeen gisee mobilisation bi nga xam ne ñu ngi koy def wakam noppalu wuñu ben yoon ben yoon wuñu donc Nyomit, it ma di len sante bu baax di len mais vraiment di sant bu baakha Castor ni may Wakam. je suis le candidat de Wakam. la je suis le candidat de Castor Derklé lolou Inshallah, ñun ñep ñu taxaw bu baakha baakha baakha baax fi ñu jëm il faut que nous mobiliser du yomb du yomb mais li li euh, góoru murit waxoon benn sëriñu Mbàkke Mbàkke ma ànd fa ak ñoom cheikh yi defe naa pire la woon mu ne ñu am na cër yoo xam ni yàlla da koy joxe ah Aliou Dia jox naa ko cër bii mu ñëw ci yow mais am na cër yoo xam ne yàlla du ko jox kenn da koy teg nële di xaar ku ëpp pas-pas pour mu jëlal ko boppam ah mu ne ma nag président. cër bi nga bëgg ci dafa bokk ci cër yi yàlla di teg di xaar boo amee pas-pas mu gëm ni yaa ëpp pas-pas ñépp te sa xol sell na ci li ngay wut boo tàllalee loxo mu teg ci loxoom nga teg ci sa loxo loolu nag mooy li nga xam ni te gëm naa ne ñun sunu mébét pour Sénégal dafa pur loolu man en tout cas xam naa te damay wax toujours bu fekkee ni Sénégal bi ñuy xëccu

ñaa du sunu mébét li ñu bëgg mooy bu ñu yoree réew mi joyanti ko teg ko ci yoon ba sénégalais bu nekk gis sa bopp gis ne réew mi kat tegu na ci loxo yoo xam ne ci la war a teg loolu mooy sunu ambition ñëwuñu fi pour wut alal ñëwuñu fi pour enrichir ñëwuñu fi pour ndombo tànk dañu ñëw bu ñu yàlla euh, dimbalee ba sunu projet mat sénégalais yi wóoluñu dañu ñëw pour servir le Sénégal man li ma gis ci àll bi li ma gis ci dëkk bi ku ko gis continuer di nelaw di yàndoo c'est parce que xamoo li xew dëkk bi nit ñi sonn nañ réew mi nit ñi sonn nañ amuñu ndox mu ñu naan nit ñi xale yaa ngi jël ay gaal di dugg ci àll bi sunu mbay mi yàqu na napp gi yàqu na càmm gi yàqu na njaay mi yàqu na lépp yàqu na jikko yi tasaaroo nañ réew moomu bu fekkee ni ña ko dëkkee amuñu conscience bu tax ñu war a jóg taxaw ne enough is enough doy na nañu ñu jël réew mi teg ko ci loxo yoo xam ne jàpp nañ ne ñii kat seen ambition yëpp mooy na baax te ñun loolu lañu ñu gëm mooy sunu ambition na réew mi jàpp ñu defar jikko yi delloowaat valeur yi nga xam ne moo nekk valeur yi nga xam ne mooy sunu soubassement mooy sunu richesse bu gën a am solo boo xam ne am nañ ba sénégalais foo mën a nekk gis ne réew mi kat tappale jeex na fi ay caaxaan jeex na fi ay njuut njaaj jeex na fi teg ay diil jeex na fi lii fi nekk mooy ñu teg réew mi ci dëgg te ñu ànd ci dëgg parce que réew moo xam ne dañuy raggante la ragalante ay ginnaaw dëgg amu fa ay naxaatee fa am réew moomu du ma baax yàlla ci boppam moom moo ni su ngeen bëggee ma jàppale leen da ngeen di taxaw a ah, bu ñu taxawul nag li fi nekk bu continuer musiba la réew mi fu mu jëm ñun ñëpp xam nañ ko ñi sonnoon démb a ngi gën a sonn ñi jël alalu réew mi di ci di ci def naka sudul noonu ci la ñu gën a am possibilité wu jël alalu réew mi def ci naka sudul noonu donc loolu daal mooy yi nga xam ne jàpp naa ni il faut que ku nekk si ñun nga jóg taxaw parce que Aliou Mamadou Dia rek mënul defar réew mi su ma ay ministres ministres yooyu rek gouvernement rek mënul defar réew mi il faut que sénégalais yi kenn ku nekk ci ñun nga jóg takku taxaw Xamni ne réew mi da nga ci am responsabilité Bo xamni da nga ko wara a rien ne sera plus comme avant rien ne sera plus comme avant bu ñu jotee ci réew mi daañu ko teg ci dëgg ku dëgg neex nga tok ku dëgg naxari nga sàkk pexe mais ci dëgg lañ koy teg ñi may àndal bu ñu doxalul dëgg ma jëlee leen fa andi kuy doxal dëgg loolu kese la donc loolu moom defe naa ne amul amul naataable te dama koy wax foofu laay terminer lenn rek ma yitteel du ñaar du ñett du ñeent li may yitteel mooy ndax li ñuy dugg intérêt wu Sénégal. bu dul intérêt wu Sénégal sama yoon newu ci du ma ci dox du ma ci wax bu dee intérêt wu Sénégal nag dinaa mobiliser waa Sénégal yëpp mu sotti ak commencer par sama bopp ak ñi may àndal di liggéey bu dul intérêt wu Sénégal dinaa ne képp ku ànd ak man di liggéey bu ci perdre sa temps bu dee suma intérêt ñun bëgguñu intérêt wu Sénégal moo ñu tax di wax toujours ne li may jublu muy présidence de la république du Sénégal bu djubou ma ci ak sama borom ci décision buma wara war jël décision buma wara war a jël li bëgg moy jubóo ci ak sama borom soxlawuma ma wax dama koy wax toujours sénégalais yi amana duma dajé ak ñom yowmal xiyam que yowmal xiyam défé na dina bari ay nit yu baree baree bari yu am ay problème yu bari ñu wara a Défé na do tal ci Sénégal la jóge wala jóge wu du awaana duma ma dajeeg sénégalais yi yow mais yàlla dinaa dajeeg moom dina ma laaj te bëgguma dajeeg sama borom mu di ma laaj loo xam ni dama ko waroon taxawee te matu wala ma koy laaj donc yàlla laa bàyyi sama xel sama loxo bii maa ngi koy ñaan yàlla dafaguma ko sama loxo bii maa ngi ñaan yàlla bu ma ci signé mukk luy lor waa Sénégal té bama dalé liggéey di signé ak légui yag na té fatali fàttalikuwuma benn yoon ma signé dara dem teud sama kër né ah la ma signé waruma ko signé même fama ma di liggéey bala may signé dina ko saytu xol ko xolat ba am yaqin né li kat may signé taguma ko ci sama bakkat sama teeyu bakkanu gess mais intérêt général la ko teg donc man lool moy sama ambition pour Sénégal di sante ñëpp di gërëm ñëpp j'espère que fatéwuma dara Papa Ndaw asalaamaaleykum wa rahmatullah